salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar Net Ouzin ngeen di àndal ci xew-xewu jamono dañ koy ubbeeg mbir mu doy waar mi nga xamante ni moom moo am fële ca gàcc nawbe di ab dëkk bu nekk si wetu ak euh, euh, dëkk boobu nag ab accident bu métti métti moo fa am ab minicar moo daw saaraam daal di mbëkk benn camion benn ba juróom doomu aadama daal si ñàkk seen bakkan juróom-ñetteel ba mi ngi ñàkk bakkanam ginnaaw gi ko yóbboo hôpitalu Kaffrine bu ñu fa jigee dañuy dem si ki nga xamante ni moom mooy jaari Sow jaari Sow ginnaaw gi démb ci guddi la ñëw si Air Sénégal ak wu Air Sénégal ànd ak ki nga xamante ne moom mooy parrain am di Serigne mbay Thiam. ay mbokkam nanguwuñ yee ci yàbbi waaye nee nañ kontaan nañ bu baax a baax ci seen doom dellu dellusiwaat ci seen i loxo te nee dinañ ko yóbbu fi nga xamante ni moom mooy hôpital. Assane Diouf tëdd weer juróom-ñetti weeri kaso juróom-ñetti weer la def li nga xamante ni moom mooy rëbës Assane Diouf euh, yoon daan na ko ñetti weeri kaso euh, ñetti bi moom moo ko daan loolu di ko toppee li nga xamante ni moom mooy xotti war ma njiitim réew kàddu ñaaw jëmale ci ay kilifa ak xëccoonteeg ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay policier ay policier waaye li ciy metti ki nga xamante ni moom mooy Clédor Ly Clédor Ly nee na loolu du dëgg du yoon li nga xamante ni dañ ko ko daan amaana mënoon nañ ko ko bañ a daan temps bi mu def gaso kaso waru ko woon def te Assane Diouf bu ko neexee mën na def appel ndax ni nga xamante ne moom lañ koy toppee muy xëccoonteeg ay policier te policier yi ci enquête bi amul benn policier boo xam ne Assane Diouf da doon xëccoonteeg moom woy leen di abonné seen site d'information bi di Dakar Net dara du la rëcc ci réew mi